que sunu ujaaj yi ña nga woon fële ca Baytul Haram ngir matal seen juróomeelu ponk lislaam ñu xamle rek ni euh, vol bu njëkk doon indi si ujaaj ji yegg si na ndakaaru tey ci suba teel gi ci la ñu yegg si nee nañ nag lu tolloog ñaari téeméer ak juróom ñetti fukki nit ak juróom ñu ngi woon ci boobu vol euh, bi nga xamante ni Air Sénégal moom moo ko euh, compagnie Air Sénégal moom moo leen jële màkk indi leen fii ci ndakaaru jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem ak dikk bi ci suuf seek ci jaww ji di El Malick Ndiaye teewoon na ci l'aéroport international Blaise Diagne ñu wax ci euh, li nga xamante ni moom moo di euh, meneen mbir mu di nag wàllum politique politique euh, boobu ba léegi ñu féete ci kujje gi rawatina kàngam yi ci gën a ràññeeku ñu ngi nekkoon ci tekk tekkaaral waaye ki ñu gis mu bind ab bataaxal doon ko jagleel ay ñoñam moo di Amadou Ba Amadou Ba nekkoon candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu génn bokkoon ca APR moom daal bind na ab bataaxal euh, di euh, ñaax ay ñoñam ngir ñu mën a wane seenu taxawaay gu responsable ci euh, kujje gi ñu féete mu nekk nag woote gi nga xamante ni mu ngi leen ci woo moom ak ay ñoñam waaye tudd ci benn yoon ñii di waa APR partem ba woon waaye tudd ci coalition ba ko sampoon di waa Benno Bokk Yaakaar ci meneen mbir mu di wàllum environnement gis nañ nag ay ndaw di ay ndongo daara ànd ceeg euh, cosaanoo fii ci réew mi ànd ceeg ñeneen sax ñu jóge bitim réew waaye di jàngee fii ci Dakar doon euh, dem fële ngir setal plage yu Yoff loole nag nekk ay jëf yu am solo euh, mu doon li nga xamante ni dañ ko war a wane ngir ñu bëri war cee mën a roy rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàppee plage yi wala géej gi ni tuurukaayu mbalit mbokk yi ñetti ponk yooyu moom mooy li ma leen jukkil ci li gën a fës ci bopp xibaar dellu di leen gërëm di leen sant yéen ñi taamu seen télévision 7TV mbokk yi ak xarit xibaaru marax gi kon ñu daal di koy doore ak euh, sunu ujaaj yi nga xamante ni ñoo demoon fële ca màkkatal mukarama ngir matal seen juróomeelu ponk lislaam di ñu xamal ni vol bu njëkk di indi ujaay ji yegsi na fii ci ndakaaru tey ci fajar gi euh, la yegsi euh, Air Sénégal International moom moo ko affrété nee nañ nag ci lu tolloog ñaari téeméer juróom-ñetti fukk ak juróomi ujaaj ña nga woon ca boobu roppalaan jëwriñ bi ñu dénk dem ak dikk bi ci suuf seeg ci jaww ji di El Hadj Malick Ndiaye moom ma nga woon ca l'aéroport international Blaise Diagne ngir mën a taxawu ujaaj ji yàlla dogal na ne tamit lu ci nekk rek jéem nañ cee dem kéem kàttan ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal bi équipe yi nekk fii ak ekip yi nga xam ne ñoo nekk fële ca makatal mu karam ngir mën a wàññi coono yi donte xam na ne aj màkka ma mënul ñàkk coono waaye nag am na loo xam ne ci suñu responsabilité la ñu koy assumer ba mu mat bépp euh, jafe-jafe bu ci am incha allahu rabbi bu aj ji ñëpp ñibbisee li ñuy njëkk a def mooy dem ci évaluation jublu daar daar ci waajal édition bii di ñëw nga xam ne à cent pour cent dinañu ko mën a maîtriser ba lépp mën a jaar ci yoon incha allah ci ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu des ci aj gi bi ñu demee màkk ginnaaw bi leen xëy na jàngoro dabe mu nekkoon kon tertu ujaaj e, dooro yegsi di première vol kon bu indi suñu ujaaj yi mbokk yi ñu wax ci leneen mu di wàllum politique politique ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi amadu Ba bind na ab bataaxal courrier bi nag mu ngi ko jagleel ay ñoñam di leen ci xamal taxawaay bi ñu war a am ci wàllum kujje gi waaye it euh, ni ñu waree soppi ni ñu waree euh, soppi doxalinu politique ci réewum Sénégal ngir mën a euh, ku ci nekk mu di ñu féete ci nguur ak ñu féete ci kujje ku ci nekk war a mën a jouer rôle am rawatina boole kooku responsabilité mu yàgg lool kenn déggatu ko woon ci wàllu politique moom Amadou Ba ginnaaw ba mu ñàkkee élection présidentielle bi ci kanamu Bassirou Diomaye fay moom génn na ca pataaral ga mu nekkoon ba tax ni tam rek moom ilimaanu jëriñ ba woon ne daal ma ngay waxtaan ak askan Sénégal e ci bataaxal bu nga xam ne kat moom la daal di ya publier moom mi ngi ko daal di duppee yeneen i responsabilité waaye laaj bi samp mooy ndax dafa fas yéene incarner ab opposition républicaine ndax day daal di samp ab parti politique wala ab mouvement yi tamit daal kenn mën na gu cee xam dara li wette wóor daal mooy Amadou Ba moom kat ma ngay joxe avantage ci détails yi nga xam ne moo delluwaat ci ay orientation yi ci cadre politique bi lee ba tax na ci ëllëgëm waaye ñi nga xam ne moo ñeel ci partem bi di waa APR waaye tam ci bataaxal bi ñu ngi ciy jàngee ne moom inimaanu jëwriñ ba woon mi ngi ci wax ne kat am na daal loo xam ne foog ñu daal di koy rango mooy cadre bu nga xam ne daal day tax rek gis-gis yi mën cee tuuru lépp daal ñu mën koo xool ci wàllum doxalin ci wàllum tëralin ay dafa delluwaat ngir ñu tabax société bu nga xam ne kat day tollale ñëpp foo xam ne kat askan wi seen kanam dana belli loo xam ne kat des ci mën a dundee bu baax a baax waaye résultat boobu ngir mën cee yegg si Amadou Ba ne daal Sénégal war na nekk exemple ci wàllum service public de qualité ci li nga xam mooy wàllum euh, bay dunde wàllum wér yaram wàllum njàng meeg njàngale mi ci wàllum ndox ci wàllum électricité ci xëy ndaw ñi ak foo xam ne kat dañ ci mën a dundee bu baax a baax waaye alam bii ba tax na daal ci boppam moom standard yi nga xam ne moo nekk ca tugal ba tey nee na daal dëkk bi bu di sukkandikoo ca moom ne am na atu yoo xam kat mën na koo ràngoo fexe ba li nga xam ne moom lañ xaar ci ndaw ñi ak li nga xam ne mooy engagement ci jigéen ñi ak ci góor ñi loole ñu mën koo jëmmal la ba tax na kat jàpp na ne loolee mën na nekk ndax gis-gis bu bees ak doxalin bu bees loole daal cëlee woo askan wi. moom Amadou Ba nekkoon élimaanu jëwriñ yowoon Euh, waxul sax euh, lan mooy taxawaayam ndax day wéy ak waa APR wala day génn coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk ay laaj yu ñu bëri nag samp di laaj kii di Mamadou si Albert moom jàpp na ni daal lii amadu Ba def ba mu ko waree def sax yàgg na maanaam jël ay responsabilités am te xàll yoonu boppam. donc loolu euh, ñi nga xam ne en tout cas voté nañ ko wala ñi nga xam ne ñu ngi ci APR wala ci Benno ànd ak moom ci loolu. ñooñu lay woote pour ñu xam ne moom mu ngi ci opposition bi ci opposition lay woo ñi xam ne woote nañ ko ci élection bi mujj léegi nag xamuñu est-ce que Amadou Ba day des ci APR wala ci Benno bon loolu mu ngi suñu kanam euh, lu wër ba wóor mooy que moom jël na responsabilité am xaarul communiqué APR wala Benno xaarul ndigal ci président APR muy Macky Sall donc euh, mën nañu wax ne benn tànk bi moom génn na génn na ci APR ak Benno jël na responsabilité personnelle léegi nag ñu ngi ci politique xamuñu euh, APR naka la nar a gisee euh, communiqué boobu ak Benno njiitum réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye njeexitalu ay bés bi ma nga woon fële ca réewum tugal rawatina France foofee nag euh, doon na fa amal ab euh, doon na teewe ndaje mu ñuy waxtaane wàllum wér-gu-yaram rawatina vaccin yi Afrique war a mën a defaral boppam waaye nag ca euh, nga ne ca tukkim boobu jot na cee gisanteeg président Abdou Diouf nekkoon fi moom it njiitum réewum Sénégal ci dirub ñaar fukki at kon ñu bëri jàpp nañ ni gise boobu Jomaay président Jomaay fay gis président Abdou Diouf dina gën a mën a yokk expérience kii di président Jomaay Fay ndax ab du juuf ci wàllu nguur kenn du ko jàngal nan lañu koy yore ca ba mu nekk ca Paris ki nga xam mooy njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye jot na daje ki nga xam ne mooy njiitu ba woon di Abdou Diouf daje boobee nekk lu am solo diggante ñaari personnalité yi ak joxante loxo bu nga xam ne la muy témoigner rek mooy doxalin bu bees ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum politique nee na lii kat Diomaye mën na cee gën a profiter jege Abdou Diouf bi nga xam ne kat mën na ko conseiller. Abdou Diouf expérience am Abdou Diouf respect bi nga xam ne am na ko sur le plan international ak fi mu jot a jaar jàpp naa ne mën na ki nga xam moo di euh, ndaw bi nekk njiitu réew Sénégal jàppale ko si expérience am jàppale ko si carnet d'adresse am ñi ngi jëm si exploitation pétrole ak gaz bi tamit am na lu bari lu ma ko mën a xelal ba pare moytu loo ko li nga xam moo di de pression yi xam ne moo di lobby te lobby mi ngi partout donc lu si mën di am rek jàpp nañu ni daal euh, ndaje boobu ndaje bu baax la te itamit boo nekkee ndaw di daw ko tàmbali baax na ngay seeti mag ñi nga xam ne ñoo la si jiitu buñ sukkandikoo ci Ali Fari Ndiaye moom analyse politique la nee na Abdou Diouf ci boppam homme d'état la nitu réseau la waaye tamit nit ku sage ba tax na loole daal jomaay mën na cee gën a am jàngat. donte ne période dam ak ayam ajustement structurel bi réew mi xawoon na métti économiquement mais diplomatiquement ak euh, au niveau international yore na Sénégal yorin bi nga xam ne moom la ko waroon a yoree. ba ñëpp céral ko ñëpp respecté ko te loolu euh, Diomaye bu nekkee un jeune président war na mun a inspiré wu ci expérience boobu président Abdou Diouf am war na mun a inspiré wu ci élégance am ak ci sagesse sam pour moom tamit mu mën a topp ci tànk yu mel noonu ab Abdou Diouf bi nga xam ne mën na cee jaare yi tamit rek dimbali nga xam mooy Jomaay Fay Jomaay tamit nekk ci tànk yu Macky Sall mii nga xam ne moom itamit jot na daal di nekk ci peggub Abdou Diouf ñu wax ci wàllum euh, responsabilité sociétale d'entreprise maanaam kërëb liggéeyukaay bu ne euh, bërëb ba nga xamante ni euh, fa la sanc mu war faa mën a jariñ waa gox boobule loolu nag moo waral ci lu tolloog ñaar fukki million nag du ay koppar waaye am ñax la bu jur gi war a mën a dunde mu di investissement boo xamante ni dañ ko def ci ay tool bay ñax yooyu le ngir mën ci wëgg xont jur gi Euh, ci entreprise euh, ni ma leen ko waxee ci res euh, société ci RSE lañ ko lal mu di benn entreprise boo xamante ni daal bëgg na kon loolee di am ñax mu daal di ci dimbali bu baax ñii di sàmm yi ba dina moytandiku coow yi ñuy faral di dégg ci diggante sàmm ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di borom tool yi Mounirou Samb responsable ressources humaines West Africa moom mooy addu kon ci mbir mu ni mel waaw ñu ngi leen defar euh, ñeent fukki hectares lañ leen bayal bu demee ba jamono biy jot ñeent fukki hectares lañ leen di bayal pour ñu jox ko seen jur yi loolu li muy signifier mooy parce que dégg gis nañu diggante baykat yi ak sàmmkat yi conflit da ciy am chaque fois toujours ñuy xuloo di xeex te ñàkk bi la loolu nag moo waraloon ñu leen dañ leen bayal lii jox leen ko parce que nit ki tamit boo jëlee suufam nga ciy liggéey di ci am kon ñoom tamit léegi amatuñ fu ñuy sàmmee kon ñun war nañ def benn effort boo xamante ne toppatoo leen loo xamante ne mën nañ cee teg seen i tey boo xoolee commune bi fii eh, commune Kër Momar Sarr commune commune de Nidji rek ngay gis ku pël buy rat parce que ñax bu tooy bi boo ko amee di nga am meew. mooy pël yi doon dem di màngaani parce que fii di doon gis nit ñi di dem di màngaani di bàyyi seen kër di bàyyi seen i doom di dem ñu xam lan moo xew seen ginnaaw léegi nag ñu ne lii bu ñu ko defee nañ leen mën a téye ci seen biir commune bi ñu téye nekk ci seen kër yi uuf seen njaboot di am lu ñu jox seen bàyyi que lii lañ doon wëri buñ ko buñ koy wëri nag buñ ko amee fii kon dem mën dematuñ fenn. sant yàlla bu baax que dem ba heure sunu partenaire West Africa Farm at bu ne def koy def quarante hectares la béyal. mu nekkoon quarante hectares boo xamante ni lépp ab euh, maanaam euh, ñax la bu jur gi mën a xonto euh, valeur nekk ci ñaar fukki million ci sunu ay koppar ñu wax ba tey ci wàllum jur gi ndax weesu nañu fetu tabaski waaye li ñu nemmeeku moom moo di ba léegi xar yi ñu ngi des ci mbedd yi lu ko waral nag moom moo di. ñenn ñi jàpp nañ ni li ñu dugal ci ay xar ci réewum Sénégal atum ren jéggi na lool li nga xamante ni moo nekkoon suñu bëgg-bëgg ba tax na daal ñëpp jàpp déggoo nañu ni xar manqué wul atum ren waaye yooyu jaaykat ñu ci bëri jóge bitim réew li ñu bëgg mooy ñu mayaat leen ab diir ngir ñu mën a jaay seen jur. ci total bu toll ci huit cent dix mille xar am na ci lu ëpp trente huit mille yoo xam ne kenn jaayi ko loolee nag la ñu nemmeeku ñeenti fan gannaaw fête bi. ci point de vente yi nga xam ne ñoo nekk ci booru stade Léopold Sédar Senghor éleveurs yi ba léegi ñu ngi xaarandi ay clients. Euh, troisième jour tabaski bi la gars yi commencé di jënd si par ndànk-ndànk aussi tamit comme gars yi loo bi ñu doon def ak groupe bi ñu doon def ñëw di jëndandoo xar yi ren moom demewul noonu wax dëgg yàlla. ndax aussi tamit xar yi dégg la seeruñu boobu seeraay aussi tamit xam naa réew mi moo toll na crise boo xam ne amatul xaalis. bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag xar yu bari yi ñu gis ren loolu moo waral ñu ci bëri ci ñoom jarlewuñu te Sénégal dafa indi xar yu bëri en même temps bi ñëw Mali Mauritanie ba Burkina yëpp ñëw moo tax xar yi bëri ba mu ëpp te ay dañ leen ñu bëri waaye xar yi mënuñu jeexal. am na ci ñoo xam ni sax dañuy obligé delloo seeni xar bu fekkee ne gisuñu ko ko jënd. ren ñu dul woon indi sax indi nañ daanak boo paree daanaka xaaj bi yëpp dañoo delloo euh, jaayuñu ndax da ngay kii usine koo xam ne ne day indi ñaari camion mais benn ak wàlla xaaj lay jaay yóbbu benn xaaj daanaka xam nga lool taxul euh, nit tamit jóg. situation bi nag mu ngi gën a compliqué ci ñi nga xam ni moo di éleveur yoo xam ne dañoo jóge bitim réew ñoom nag amuñu beneen pexe lu dul jaay seeni xar ba mu jeex laata ñoo xalaata ñibbi. xar yi dese naa bari na dem am naa yeneen sax yóbbu na comme ay Sénégal ñooy yooyu day yóbbu ah, ko alba bu ñu séddee mais Malien yi day day pour jaay ñibbi quoi voilà moo tax xar yi woon am xar yi aaj. ñu jàpp ni nag délai bi nga xam ne moom lañ leen jox ngir ñu nekk ci bërëb yi dafa gàtt loolu ñu ñaan ak autorité yi ñu defal leen dérogation. nous les Maliens nous ñun ñu bàyyi ko Mali dañoo jox délai fukki fan ngir ñu daal di jóge ci yile barab jàpp naa ni dafa gàtt lool te amuñu fenn fu ñu jëm. moo taxit ñuy ñaan rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiit yi ñu daal di ñuy may beneen délai rek ba ñu daal di jaay li ñu yor ci ay mala. pour qu'on puisse écouler nos bêtes bu fekkee ni nag bilan opération bu ren bi jaar na yoon am na ci ay éleveurs yoo xam ne dañoo perte gannaaw dépense yu mag yi nga xam ne def nañ ko li ñu desee ci ay xar bëri na loolu. jërëjëf Matar Bari mu nekk kon jaaykatu xar yi jóge woon bitim réew ngir jàpp ci opération tabaski bi. opération tabaski boobu sax leneen lañ ci ràññee moom moo di ni euh, ñu bëri nag daanaka dañuy jël seen i mbalit di ko sànni ci plage yi ba tax na euh, daanaka euh, plage yi salte la salte na lool bu nuroog sax maanaam am sën maanaam turukaayu mbalit loolu nag ay ndaw jóg nañu jël seen i matuwaay ngir bëgg a seetal plage yi pour montrer l'exemple di ay étudiants nekk ay doomu réewum Sénégal ànd ceeg ñi nga xam xamante sax bitim réew lañ jóge ñëw ci réew mi ngir sàkku xam-xam bu Yoff lañ doon mëne seen opération. lii projet la boo xam ne nii dañoo toog classe nas ko sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba aar suñu plage yi. jëmmal fi lu am solo ëllëg loole moo di seen mission ñu nekk ay fukki fukki étudiants ñu daal di boole seen doole ngir rek lépp luy mbalit lu nekk ci plage ñu daal di ko fay jëli bile yoon nag ñu amal ko ca bu Yoff. les côtes dugal seen loxo ci boobu la xeex nag tax ñeneen di daal di jot ci liggéey yi leen ndaw ñaari étudiants yi ñoom it guleet ñu daal di bokk ci activité bi ni mel ñu bëgg ko wëyal. quand on veut se protéger nous-mêmes. suñu bëggee aar suñu bakkan aar it suñu dëkkuwaay faara ñu soppi doxalin faaw ñuy xeex ngir sàmm alam gi. bokk ci genre activité yu mel nii jàppalante entre ñun ñi bañ di tilimal tamit. naam seen doole demeewul noonu nag teewul ñuy woy di amal seen liggéey ca na mu waree. li ñu mën a def bëri na lool waaye nag amuñu ay moyens ngir jëmmaale sañuy projet ñoo ngi rek a sàkku si ñi nga xam ne dañuy yëngu si lépp luy sàmm alam gi ñu jàppale ñu dugal seen loxo si lu ni mel. taux pollution plage yi ak érosion côtière fii ci Sénégal mu nekk ñaari question yi nga xamante ni nag daal dinañ koy becc ci ab film documentaire balaa ñu ko fësal nag ñuy woo ñëpp ba ñu dugal seen yoxo ci xeex aar géej gi. on est pour lancer un appel. ñun daal ñoo ngi nii ñoo ngi woo képp koo xam ne mën nañu jàppale ñu dimbali ñu ndax fi ñu bëgg dem ñëpp si nar a gis seen bopp te amul xaaj ak seen it. aider toutes les personnes qui sont victimes de l'érosion côtière. kon Omar moo ñu damaloon ca plage bu yof ñu wax mbokk yi ci xibaaru bitim réew réew Mali lañ koy doore foofee nag euh, la ca am moo di ni lu toll euh, ak fukki nit ak benn. féete ci opposition bi ñenn ñi sax nekk ay njiitu parti dañ leen daal di teg loxo loole nag ñu mu nga amee woon euh, ca pays réew ma di Bamako gannaaw ba ñu dee amal ñoom kuje gi ab euh, ndaje euh, ba xaatim fa sax li ñu duppee ñoom déclaration commune du 31 mars loole bañ ko xaatimee yàgg na waaye lañ ci jublu woon mooy fexe ba soññ soldat sa yor réew ma ngir ñu amal ay wote ndax loolu la ñu diggee woon ak askan wi te jàpp nañ ni délai bi sax passé na euh, ba ñu amalee seen ndaje boobu nag ca lañ teg loxo fukk ak benn ci ñoom ñenn ñi nekk ay sax leader de parti ndax nee nañ seen ndaje bi du woon ab meeting waaye ñu ngi ko amale woon ci këru kenn ci responsable yi di wuyoo ci Moustapha Dicko ba tax na daal euh, fa lañ leen fekk ñu bëri ci ñoom ñu daal di leen teg loxo euh, kon mu nekk li nga xamante ni sax daanaka yàggul dara ba soldat si jëlee ab dogal ni eh, tere nañ fa lépp luy ndajem politique loole nag eh, ñu ngi ko jël mu di ab dogal bu xaw a salfaañe nag yëf yi ndax ba ñu waxee ñoom soldats si ni dañuy woote dañuy amal ay woote date ba eh, paase na ba ba bu yàgg ci réew Mali lañuy ñuy desandi ba tey waaye nag doomu réew Mali la waaye ca tugal lañ ko tegee loxo mu di woykat bu mag bi di Rokia Traoré Rokia Traoré Euh, dañu lancé woon ci moom euh, benn mandat d'arrêt euh, mandat d'arrêt européen démb ci fête de la musique bi ñu doon amal foofee ca Italie lañ ko convié woon mu waroon fa amal prestation moom Rokhaya Traoré ba mu yegsee nag ca aéroport ba la ñu gis ni dañoo lancé woon ci moom mandat d'arrêt européen maanaam fu ñu ko gis rek ci réewu Europe yi ñu daal di koy teg loxo mbir mi nag ma nga doore woon ci ñàkk déggoo bu amoon ci diggam mag ka mu doon ka ko doon denc atum deux mille dix neuf gannaaw euh, mu di doomu réewum belge la doon seyal gannaaw ga nag seen doom ba ñu am moom Rokhaya Traoré mu daal di dama gone ga ca Mali téye ko fa di xale bu jigéen ca la euh, papa ja euh, lance damoon ca fa mbaxane doone benn boole ko ba daal ñu jàpp ni wàllum élève enlèvement séquestration et prise d'otage daal lañ koy toppee ndax gone googu mu génn réew mi yóbbu ko ca dëkkam ba mu cosaanoo di réew Mali loolee daal moo waral fi ñu toll nii ñu daal di ko teg loxo moom Rokhaya Traoré kon loolu mbokk yi moom moo fi xibaar xanaa ñu wax ci wàllum tàggat yaram rek ak beneen dogal bi nga xamante ni waa CAF CAF jël nañ ko kaaf nag moom moo di confédération euh, bi euh, nank wàllum football fii ci Afrique CAF kon jël na ab dogal mu di wàllum coupe d'Afrique di compétition bi gën a mag fii ci Afrique ci wàllum football kon confédération africaine de football di CAF maanaam jël na dogal wax kañ lañ ko war a amal euh, prochaine coupe d'Afrique nee na 21 décembre 2025 lay door war a jeex 18 janvier 2026 te nee na tirage au sort yooyu ci éliminatoire yi ñu ngi ko war a door le 4 juillet fële ci Afrique du Sud di Johannesburg euh, ba tey lu ñeel euh, football ci wàllum jigéen ñi CAF euh, annoncé na ay date ndax réewum Maroc moo war a daloo Coupe d'Afrique bu soxna yi nee na 5 euh, juillet lay door war a jeex 26 juillet 2025 ba tey mbokk yi lii lañ leen fi indiloon ci ay xibaar ma amoon mbégte lool ngir teew ngir yégge leen ko di leen këram ci teewlu bi ak taam ngeen taamu seen télévision 7TV Suzanne Deme dina fi teew léegi rek bu juróom-ñetti waxtu jotee moom it dégtal leen xibaar yi ci kàllaamay euh, nasaraan jël ngeen jëf mbokk xarit